Messieurs, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes vous a convié ce matin pour partager avec vous des informations sur un sujet qui cristallise depuis quelques jours les attentions et les commentaires. ndajal ak euh, taskatu xibaar yi bi waral tey ñu toog fii mooy li jëm ci ñaxtu bi jëfandikoo jëfandikatu téléphone yi ak internet yi ñaxtu woon ci waa Sonatel ci yokk bu ñu yokk ci ci seen yenn offre Illimix yi kuréel bi yor ARTP moo leen dajal tey fii ngir yaatal doxiñam ci àtte boobu euh, waraloon suñu àtte boobu ñu doon xaar ci ñun ci mbiru offre yooyu Sonatel dafa tegoon ci marché bi le 22 juillet àtte boobu. may nañu ñu déglu Sonatel ñu déglu consommateurs yi ba yàlla may ñu tey ñu am àtte boo xam ne farul fenn àtte bi mu ngi far ci intérêt général mooy ngëneelu askan wi bi ñu paree àtte bi tey euh, yàlla may nañu ñu mën a def ci marché bi ñu obligé Sonatel mu def ci marché bi offre yi nga xam ne kenn ku ne dina ci mën a gis boppam en fonction de son budget ak li muy jëfandikoo internet ak téléphone loolu nag buñ ko amee mënuñu bañ a gërëm association consommateurs yi parce que ci tey ci dal ñëw nañu fu àtte amee mooy ARTP ñu déposer seeni plainte bu loolu amee ñun ñu woo Sonatel àtte d'abord mu aj offre yooyu mu tegoon ci marché bi àtte tam mu mën a indi yeneen offre yoo xam ne nit ñi dinañ ci gis seen bopp loolu bu amee itam mënuñu bañ a euh, gërëm Sonatel mais surtout gërëm président de la république ki nga xam ne mooy njiiteelu réew mi mooy ki njëkk ci consommateurs yi mooy tam ki nga xam ne fu mu toog li combat mooy li gën ci population sénégalaise donc di leen gërëm yéen ñi journalistes yi yéen taskatu xibaar yi ñëw teewee fi fekkee suñu point de presse bi di leen xamal li tam ñun ARTP askan wi ak intérêt général moo ñu fi teg te itam lépp li ñu war dinañ ko def surtout ci mbirum couverture mooy téléphone bi yegg téléphone bi ak internet bi yegg ci ci Dakar d'abord d'abord et puis ci gox yu gën a sore et puis fexe aussi ba téléphone bi euh, njëg li euh, bañ a seer mais surtout fexe ba téléphone bi ak internet bi qualité bi baax parce que qualité bi moom ñëpp xam nañ ne qualité bi baaxul te loolu mooy suñu xeex saa yu ñu xëyee ci loolu lañuy ñuy liggéey euh, opérateurs yi am na ay matuwaay yu ñu jëloon ñun ak suñuy équipe ñu ngi vérifier nag ndegam loolu ñu waxoon ñu ngi koy def buñ ko defulee dinañu teg ay décision ci seen kaw loolu laa bëggoon. Euh, fësal fii ci point de presse bi di leen di leen gërëm di leen di ñaan yàlla itam euh, mbas mi nekk fii ci réew mi yàlla jëlee ko fi lu gaaw et puis euh, économie bi gën a doxaat ni mu ware merci. Mesdames et messieurs, je vais vous exposer enfin les résultat du traitement des saisines. Le résultat de notre intervention donc peut se résumer comme suit. sur l'ensemble des offres lancées sur le marché par Sonatel de cristalliser essentiellement les réactions des associations des consommateurs. Il s'agit de l'offre Illimix Moi 1900 qui, selon ces associations, a migré vers une Illimix Moi à 4500 et l'offre Illimix Moi 5900 qui a migré vers une offre Illimix Moi 7500. D'après donc les associations des consommateurs et les plaintes qui nous sont parvenues, Ces deux offres ont donc connu une évolution de leur contenu et de leur prix. Les, autres offres ne posaient pas de problème majeur. La Sonatel, quant à elle, a soutenu que l'usage de certains services dégrade fortement la qualité de services QoS. Tenant compte de l'injonction relative à la suspension à titre temporaire des offres décriées, la Sonatel a proposé l'introduction sur le marché de nouvelles offres alternatives, dont une à dominante voix à 2200 et une autre à dominante data à 5500. Il est important de rappeler qu'au profit du consommateur, les prix des deux offres décriées sont passés pendant la période de l'instruction des plaintes, respectivement de 1900 à 4500, finalement à 2200 pour l'offre à dominante bois avec 50 minutes de communication voix, tout réseau en 6 et une baisse du volume data. Ensuite, pour l'offre de 5, de 5900, elle est passée donc de 5900 à 7500 pour ensuite descendre à 5500 pour l'offre à dominante data avec 3 gigaoctets de données en sus et une baisse du volume de communication voix. L'ensemble de ces mesures devrait permettre au consommateur de disposer d'une large palette d'offres lui permettant d'exercer le libre choix en fonction de ses usages et de son budget. À l'opérateur de réajuster ses offres en tenant compte des préoccupations du grand public tout en conservant la liberté de suivre la dynamique concurrentielle du marché et en veillant à la qualité des services fournis sur laquelle nous serons intransigeants. enfin au secteur des télécommunications, de préserver la valeur du marché, principal atout pour poursuivre les investissements nécessaires au développement technologique et à la promotion de l'innovation dans les services numériques de qualité et adaptés aux besoins de toutes les couches de la population sénégalaise. Je voudrais aussi vous rappeler que même si la loi confère aux opérateurs la liberté de fixer librement leurs offres et le prix de celles-ci, exerce un encadrement spécifique sur le marché de détail des télécommunications. Cet encadrement se manifeste par la fixation d'obligations spécifiques à Sonatel à travers sa filiale Sonatel Mobile, seul opérateur déclaré puissant sur les quatre marchés pertinents de détail. L'encadrement des promotions, l'amélioration de la dynamique concurrentielle sur le marché de la téléphonie mobile, la création d'un espace économique au profit des opérateurs concurrents et la mise en place de la portabilité des numéros mobiles, etc. Ces différents outils régulatoires mis en service ont permis une baisse continue des tarifs des services de télécommunication, ce qui confère à nos populations, ici au Sénégal, les tarifs les plus bas de l'espace CDAO et parmi les plus bas en Afrique rapportés au PIB. C'est l'occasion pour moi de saluer l'esprit de collaboration de Sonatel et de remercier surtout les associations de consommateurs pour leur démarche citoyenne, responsable et le temps qu'elles ont consacré la compréhension face à la mise en œuvre par l'ARTP des leviers de régulation nécessaires face à un contexte de pandémie. Devant le dénouement heureux de cette situation, il nous revient le plaisir de féliciter et de remercier chaleureusement le Président de la République, son Excellence, chez Macky auquel tout le mérite revient sur cette question. En effet, son souci permanent du bien-être des populations l'a amené dès les premières heures de ses offres à rappeler la nécessité d'assurer la soutenabilité des tarifs, la qualité du service et l'accessibilité surtout des services numériques pour le plus grand nombre. Même si cette affaire constitue un cas isolé, ce qu'on pourrait assurer au Sénégal, c'est que l'ARTP nous roule pour aucune entité, l'ARTP en tant qu'institution investie d'une mission de service public sera toujours du côté de l'intérêt général. Enfin, je voudrais terminer mes propos sur la qualité de service, qui constitue un défi permanent pour l'ARTP et une exigence, et une exigence pour l'ensemble des opérateurs, tant cette qualité de service est décriée tous les jours. Et c'est cela, à mon sens, de grands challenges du secteur. j'ai rappelé dernièrement aux opérateurs leurs obligations en matière de couverture et de qualité des services et nous devons tous comprendre que nous avons une obligation de résultat. Des engagements ont été pris par les opérateurs, les équipes de la RTP sont en train d'assurer le suivi. Enfin, avec mes équipes, je voudrais renouveler aux consommateurs mon engagement à ne ménager aucun effort pour une amélioration régulière, constante et permanente de la qualité des services et pour, euh, et pour également euh, l'innovation sur le secteur des télécommunications. Je voudrais vous réitérer mes remerciements pour le déplacement et